surtout par rapport au vol de bétail da ngay sàcc dem aujourd'hui tey aujourd'hui ku jël bétail foo dem dañ lay signaler donc au moins une solution a été trouvée au niveau des populations ba la semaine passée j'ai reçu une doléance hein, ça vient des autorités bissau-guinéennes qui se trouvent de l'autre côté de la frontière pour que nous mën bu des interventions rapides pour les vols de bétail pour ñu utal leen ñaari jakarta pour loolu j'ai reçu ce ce ce ce truc là pour dire que c'est bien yoruma ko mais maa ngi am yéene bi te bu neexee yàlla aussi bu ma ko yàlla joxee dinaa dina dinaa fexe ma jox leen ko pour que ñu mën a dimbali nit ñi si wàllu vol de bétail moo nag man nit boo nekkee c'est un comportement global lépp c'est global parce que mënoon na nit ñi dañuy jàng te toujours les gens dañuy ñëw le la frontière aujourd'hui les autorités de la guinée on a plus de 10 dara yo ont tabax donc reconnaître nañ lolu aussi la lutte contre le vol de bétail population est à cause de ce communautarisme là aujourd'hui au niveau de l'autre côté de la frontière nous ñu on leur donne des moyens pour que la ab situation yoyu amé ñu intervenir vite pour pour lolu donc mota ce qui veut dire que aujourd'hui on a trouvé une solution communautaire une solution sociale contre le vol de bétail pourtant qu'est-ce kenn santuñu ko waxuñu ko fenn sax ça. dunduñu ko fenn wanewuñu ko fenn binduñu ko fenn mais si suñu doxalin quotidien la loo xamante ne lii gis nañ ni lu am njariñ la euh, benn benn jakarta ak c'est ça coûte quoi ñaari jakarta ça coûte quoi mais xoolal njariñ bu mën a am parce que c'est pour intervenir rapidement c'est pour intervenir rapidement tey bu gars yi gisee benn kii rek ils appellent l'autre pour l'autre côté dañ leen ah gis nañ ay gars yore ay na mbaa bu vol amee rek ils avertissent de l'autre côté de la frontière donc dans tout le long gars yi ñu leen di góolu bu ñëwee rek ils les prennent temps yi loolu moo fa xew au niveau le long de la frontière dans le Balantacounda mayatuñu leen dara mais ils ont remarqué que parfois dañuy am ay complices parmi euh, seen nit yoo xam ne dañ leen signalé ni ki gars yi ñu ngi leen di xaar fii loolu moo ñu bëgg ñu ñom ñu bëgg bu ñu amee moto xam nga bu wa da ngay tal këdd sa moto rek daw dem xaar leen tel côté japp leen donc aujourd'hui même lutte contre le contre le vol de bétail tay Kër Tambédou mu ngi ci jouer rôle bu ama am solo mais peut-être interview rek moo ñu wax ko waaye ñun suñu mbir joxewuñ loolu taxu ñoo jóg wax ko taxu ñoo jóg mais dafa nekk loo xam ne dafa ñu dabaale bu ñuy jóg loolu bokku ñoon suñu programme mais léegi dañ ci jouer role bu ama am solo te yaakaar naa ne aussi boo amee occasion rencontrer les gens de là-bas te confirmeront ça